saaxo nag kenn la ci xale yi nga xam ne e, ndaw yu jàngul lañu ba noppi di yëkkati seen làmmiñ di wax ci diine ji yàlla yi e, di wax loo xam ne nag kenn mësu koo wax waaye di wax loo xam ne mën naa sànq aw nit wu baree baree bari ci réew mi nga xam ne daanaka ñu baree baree bari ci ñi nekk ci e, réseaux sociaux yi daanaka jànguñu te boo waxee lu and lu ànd akum xel seenum xel mu ñaaw rek daanaka mën nañ caa lonku wala ñu jàppandu ca e, loolu nag gravité bi ci am te mooy laal diine wax loo xam ne ci diine la man nag ma bokk ca ña nga xam ne sax ba muy wax wax ja nga xam ne maanaam ci ab tarixa la jëmoon dama bokkoon ci ñi nga xam ne d' accord li li doon seen xalaat mooy dañ ko war a duma ndax lim wax indi wu ci benn firnde ludul ne nangam ji ñuy def ni du yoon wala li ñuy def ni du nangam waye tegul benn firnde bu leer ci la mu doon wax bu yag ba ci la jëmon ci tariixa ba dama jàppoon ne dañ ko waron duma duma yu metti metti ci loola ndax man na jax-jaxal xelu ña japp ci ci fofa ci lo xamne mom indi wu ci dara lo xamne lu leer la luñ mën a teg bët mën a mën a génn ca gëm-gëm ya ñu nekkoon noona e, ñëw topp ko moom ci li muy wax waaw booba laa wax de dañ ko waroon duma te booba ba léegi nag ci loola laa nekk duma yi moom ba léegi dafa war a am ndax léegi jóge na ci laalu benn tarixa waaye ci laal diine la la la la te saay saay yépp nag ci loolu lañuy tàmbalee mooy dañuy tàmbalee ci e, di def lu tuuti dem ba def lu rëy nag lu mën a yàqu yu mën a eh, tojum réew eh, tey nag dafa ko yóbbu caay-caay gi daf ko yóbbu ci muy wax ci diine ji waaye bu ci waxoon la mu xam sax mu neex doonte loola nekk woote sax dana baax ndax woote ba moom lay alag li mu wax te mu nekk lu dëgg nekk luy jariñ doomu aadama yi waaye nag eh, caay-caay gi dafa daf ko yóbbu ci muy wax ci diine ji loo xam ne ay kàcc la Eh, di wax loo te mag ñi dañ daan wax ne diw dafa xamadi dafa xamadi maanaam mooy nit bu jàngul rek bu jàngul rek dafay xamadi maanaam dafay dafay dafay réew ci saasi ndax dootul wax loo xam ne lu tegu ci xam-xam la te su fekkee ne da ngay wax nag di digal ay nit wala nga leen tere te la nga leen di wax ak la nga leen di digal dara du ci xam-xam yow da reew ndax danga nga réeral aw nit wu baree baree bare ci sa caay-caay googu nga nekk loolu nag mooy li muy def nii euh, lenn li ma man nag benn euh, mbir rek laa déglu ci moom mooy li muy wax ci wàllu julli ñaari rakkaa la woon xaw ma nag ba xam def na leneen wala wala déet ndax fa yi yëpp man gëj naa ci kii bi Serigne Modou Mbacke Touré moo ma envoyé benn ojo bu toll ci vingt neuf minutes wala yu mel noonu euh, jege na trente minutes bo xamne daf ci leral julli ne ñaari rakala lolu di ab musiba waye le gën nek musiba moy mu koy jema layal ci alquran ñaari musiba ngok ñaari musiba ngoog léegi nag e, ñettelu musiba bi moy muy wax lo xamne dara du ci deug ci même preuve yi nga xamne mom lay sukkandiku e, gravité waxam nak gravité waxam ci loola ma jot a déglu ci moom dafa laxasu ci ay mbir man nag su may déglu nit dama koy nottee li muy wax maanaam li mu wax lépp su ma ko tënkee seetlu yi ma ci am mooy dafa am moom ay principe yu mu teg euh, principe bi njëkk te mooy musiba bu mag bi moo di ne sunna ci boppam dañ koy jëlee ci tashriix bi maanaam li nga xam ne fa la ñuy jëlee mbir rek mooy sun na kenn du ca jël dara kenn du jël benn hadis kenn du jëfandikoo benn waxu yonent bi wala jëfam wala yu mel noonu déedéet suñu bëggee jëfe sunu diine alxuraan kese kese kese lañuy ñuy jëfandikoo duñ jëfandikoo leneen loolu mooy principe bi njëkk a dëgg tànkam ndax bu nangoo ne hadis am na dund yonent bi am na te mën mën nañ ca àttewoo kon waxam ji mu wax yépp day daanu moo tax lenn rek lay lay lay préciser mooy nañ dellu ci alxuraan mais duñu wax nañ dellu ci sunna mukk alxuraan mooy masdar bi leneen du masdar loolu mooy musiba bu njëkk bi nga xam ne ci la teg tànkam ñaareelu bi mooy euh, euh, te loolu feeñ na ci ay waxam mooy sunu xel lañuy jëfandikoo kenn du jëfandikoo la saxiix maanaam kenn du jëfandikoo ak rotal wala xadis booy wër naan xadis bi wër naag wérut ak yooyu lool kenn du ko def ci alxuraan lenn ngay def mooy alxuraan boo fa jëmee sa xel ngay yóbbaale doo yóbbu leneen ci loolu la waxoon aaya boobu yàlla wax ne kitaabun anzalnaahu mubaraku anzalnaahu ilayka mubarakun li yaddabbaru ayaatihi alxuraan dañ koy settantal da ngay toog nga ibbi alxuraan nga xool xalaat ci sam xel gis ne lii lii lay firi kon lii lii la jërul ngay dellu ci leneen lii nag mooy ñaareelu musiba bi gën a bi nga xam ne moom teg na ci tànkam loolu nag ci la dëgg sax ba wax ne maanaam ay ay kii yi nii eh, amu ci maanaam ay barilooy looy mokkal ak bari jàng ak yooyu yëpp comme xam na ne jàngul te mokkalul dara itam faw mu dàq côté boobu waaw jàng amul solo nàngam nangam affaire bi settantal la dangay am esprit analytique loolu nag beneen musiba la bu rëy rëy waaw beneen musiba la bu rëy ñetteelu musiba bi mooy booy dem ci alxuraan maanaam lim teg tànkam mooy de bu yóbbaale xam-xam maanaam ay xam-xam ak ay adawaat arabiya ak naan dégg naa nangam ci luxa déedéet yow benn dictionnaire ngay yóbbaale bu ñuy tuddee dictionnaire euh, mujamul maani mujamul maani ngay yóbbaale kese boo ci amee arab arab buñ traduire arab wala boo xam ne français lay traduire waaw loolu daal boo ko amee kese ak sam xel ak alxuraan téere bi nga tiim nii affaire bi doy na jeex na nekk nga borom xam-xam ci saasi lii nag su fekkee dem mooy sukkandikukaayam kaayam kii pareegul li lii mu wax ni lu tuuti la maanaam dana wax leneen lu gën a garaaw lii balaa mu caa àgg nag ñu leeralal nit ñi ne kii di wax nii ab kàccikat la maanaam du benn du waxkatu dëgg ndax wax dëgg ma ngay tàmbalee nga wax loo xam ne lu am la waaw nga wax loo xam ne lu am la loo xam ne buñ ko seetee dana gis ne loolu moo nekk ci téere yi wala am na sax ay borom xam-xam yu mos sa wax loolu nga ne ci laa sukkandiku loolu mooy wax dëgg beneen bi tamit ku xamadi la xamadi mooy nga fekk nit ñi lii la ñu gëmoon même bu fekkoon ne Sénégal rek ñoo gëmoon loolu sax maanaam kilifa yi nga fi xam yépp lii lañ xamoon yéeguma nag ca yonenti baak ca saaba yaak nga xam ne ñoom ñëpp benn gëm-gëm bi la nga ñëw daati dajji lool ne loolu amul te nit ñi koy wax dañoo seetantalul alxuraan Eh, affaire yi loolu xamade reewande la reewande la eh, ñàkk xam la réer la te loolu ma doon wax rek ne mag ñi ñooy wax ne diw dafa xamadi mooy boo jàngul rek dangaa ngaa réew ndax dootoo wax boo jàngul ba bëgg a wax ci xam-xam bi da xamadi ngay ngay doon ndax dëggadul waxati loo xam ne mën naa jëriñ ab nit loo wax rek day sànq nit te su fekkee ne xissa bañ doon nettali ne sëñ Tuubaa dafa wax ne képp koo gis muy tafsir alquran jaral na la nga nga sol dali eh, weñ di daw bam ret bu fekkee ne xissa boobu wér na ci ñu mel nii la ci ñu mel nii mooy nit ñi nga xam ne xamuñu dara dara dara ba dara booloo jeex teneen tey ñooy wax ci téere yàlla bi ñooñu jege leen musiba la xam leen moo gën a sax di leen jege eh, amul fenn nag fenn ci biir wax jooju 30 minutes yi fu mu ci waxee ba tudd yonent bi salaa salaam maanaam pour ñu dellu ci moom daal pour ñu ne yonent bi waxoon na nangam wala yonanti bi waxoon na moom sax ci biir wax ji boo ko dégloo da nga dégg ne xadis moom xamu ci dara moom benn téere alxuraan la yor warshe wala xafs moom la yor bokk ko jeex na amul leneen lu mu xam ca gannaaw loola. waaw ah, de saxaluma ne nag loola mu bokk doon da ko xam ne loolu moom xam moom la gën a réere sax la la la nga xam ne moom bëtam mos ko mosut mos cee teg mos cee maanaam la mu tegul bëtam te mooy téere xadis yeeg yooyu li mu teg bëtam te muy alxuraan moom la gën a réere waaw ku nii nag su fekkee ne mooy wax te ñun dañuy am benn njuumte bu ñuy def mooy di tasaare ojo yi léegi su ko defee maanaam dof bu nekk jot ci nag e, di wax ak di apprécier naan li mu wax nii yoon la doon naa ko xalaat wala nangam nangam yëfi dof yooyu wala sëñ diw moom la daan julli musiba gën tërëy loolu moo tax ñu jàpp ne ñun faw ñu e, wax ci dara lu kemtalaay kàttan eh, bu ñu tënkee li mu bëgg a wax nag ci ne julli eh, ñaari rakka kese la kese la du ñeent ay ñeent ak ñetti rakka neen lu yooyu amut léegi julli moom ñaari rakka kese la waaw sëñ Mbàkke loolu fan nga ko teg mu ne loolu mi ngi ko teg ci benn aaya la ko teg mooy yàlla dafa wax ne walaqad aataynaaka sabaan min al mathani wal quraan al azim ci suratul xijr yàlla daf ne jox naa la yow yonent bi juróom-ñaar ci ni mu ko fiire moom juróom-ñaar ci yi nga xam ne dañ koy def ay ñaar-ñaar e, ak alxuraan nee na fii fii la teg amul benn amul beneen lay bu mu lay de benn lay bii kese la moo di sabaan mooy juróom-ñaar te mooy fatiha maam juróom-ñaari aaya la foofu rek fenn am na fa ndax أرأيت الذي يكذب بالدين جرم نار لا يلا أرأيت الذي يكذب بالدين بن فذلك الذي يدعو اليتيم نيار ولا يحض على طعام المسكين نيت فويل للمصلين نيت الذين هم عن صلاتهم ساهون جروم الذين هم يراؤون جروم بن ويمنعون الماعون جروم نار لكن لن موجي سبعا fatiha kese mooy sabaan wala bépp maanaam fatiha sabaan mooy juróom-ñaari juróom-ñaari lan est ce que juróom-ñaari aaya la loolu feeñul ci téere bi <laughs> kan moo ko wax ne juróom-ñaari aaya la loolu amul ci alxuraan ba mu jeex ñu ne sabaan mooy juróom-ñaari mooy juróom-ñaari aaya amul sabaan mooy fatiha amul ci alquran sabaan mooy euh, juróom-ñaari aaya la amul ci alquran waaw bu dee juróom-ñaari aaya sax yan juróom-ñaari aaya la est-ce que juróom-ñaari aay ci baqara mooy sab'an bi yàlla jublu est-ce que euh, euh, liñ jublu ci sab'an mooy araayta lazi yukazib bi diini su fe maanaam kan moo ko wax ne sabaan mooy juróom-ñaar boo xam ne ci be ab saar la ab saar boo xam ne juróom-ñaar la kan moo wax loolu kenn waxu ko di moom fan la mën a génne loolu ci xaj nee ku ku soxla dara yàlla daf ne bu ñu werantee nañ dellu ci téere ba na ñëw ci alquran mu génnee fi ne sab'an baat bi mu njëkk a wax rek mooy juróom-ñaari aaya yii di fatiha déedéet sabaan mooy juróom-ñaar juróom-ñaari lan loolu feeñu ci alxuraan kooku xadis moo la ko mën a wax léegi comme nangu woo xadis nag yow mën a goo dem sabaan mooy lan juróom-ñaari lan bu fekk juróom-ñaari wala juróom mbir la wala juróom-ñaari la wala juróom dëkk la wala juróom lan bala ngaa ñëw ci masaan yi maanaam sabaan kepp mooy lan sabaan mooy juróom-ñaar juróom-ñaari lan ara ayta lazi juróom-ñaari baat la juróom-ñaari aaya la fatiha juróom-ñaari aaya la ban la ci e, alquran mën nga génne ay juróom-ñaari yu bari safha maanaam page boo ibbi mën nga caa am juróom-ñaari aaya est-ce que juróom-ñaari aaya la ci jublu wala lan moo la won ne sabaan mooy fatiha loolu amut kon fen wi njëkk mooy nim ne ci alxuraan lañ war a àtte woo ba pare daat ne yàlla moo ne wala qad aataynaaka sab'an min almasaani sab'an mooy alquran masaani mooy julli yi julli yi julli yi nga xam ne moom lay def ñaar ñaar eh? Eh, julli yi def moom lay def ñaar ñaar moo tudd masaani loolu mooy kàcc wi gën a rëy mais loolu du problème loolu dana ci ñëw mais sabaan ci boppam buñ ci taxawee moom amul ci biir alquran ci téeméeri saaree fukk ak ñaar fu ñu waxee ne sabaan mooy juróom est-ce que sab'an mënu nekk juróom-ñaari asamaan sax yàlla nee na yàlla nee na wa rafa'na euh, wa banaynaa fawqakum sab'an shidaadan ñun dañoo dañoo tabax ñun yàlla ñoo tabax lu lu leen féete kaw muy juróom-ñaar yu yu tal waaye juróom-ñaar yooyu juróom-ñaar lan la juróom-ñaari asamaan léegi wala qad aataynaaka sab'an loolu juróom-ñaari lan la juróom-ñaari lan la loolu moom mënu koo indi loolu mooy fen wi njëkk bi mu def te loolu ñàkk jàng moo ko ci yóbbu nan nga mën a tëbee benn jël benn chiffre sept nga ne sept mooy mooy mooy mooy mooy faatiha sept baatu sept kese mooy faatiha loolu ki gën a réer mbaam euh, mënul wax loolu kooku nit ku aw ci yoonu sànku man li ma jaaxal nag mooy lu tax nit mën koo gëm te kii baat bu mu wax xam nga moom nee lépp ci alxuraan lañ koy génnee duñ dellu ci sunna baat bi mu nuyoo rek ci 30 minutes yi baat bi mu njëkk nuyoo dafa ñëw daal ne asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu gi mu wax amul ci alxuraan ba mu jeex tàkk amu ci mais lu gën a rëy fen woowu même maanaam moom li muy utiliser lépp dara am dara nekku ci alxuraan bi sabaan yi mu tuddee ne fatiha loolu amul ci alxuraan ba mu jeex loolu mooy fen wu njëkk bi ñu ñëw ñaareel bi mu ne sabaan min al mathani sab'an min al masaani masaani mooy julli yi ñuy julli ñaar ñaar julli yi ñuy julli ñaar ñaar mooy mooy masaani loolu aw fen la mais dama koy tëb du ma ko laalagun li ma koy laaj mooy moom waxagul ne julli euh, lim lim waxagul mooy julli juróom la moom julli juróom la juróom yooyu nag moom ngay def ñaar ñaar raaka ñaar raaka mais nangu na ne juróom la moom julli googu juróomi yoon lañ koy def par jour loolu fan la am ci biir alxuraan ba mu jeex amu ci alxuraan ba mu jeex amul fu ñu waxee ne suba tisbaar tàkkusaan timis géeye loolu amul ci alxuraan léegi moom fan fan lay dem moo xanaa moom léegi lu tax muy julli juróomi julli man balaa ñuy wax waxi rakka lu tax muy julli juróomi julli lu tax moom waxul moom dafa war a wax ne julli eh, ñaar la wala julli benn yoon rek lañ koy def lu tax mu nangu ne julli juróomi yoon lañ koy def loolu amul ci alxuraan ba mu jeex waa mais ku dàq kàcc kii dafa am julli juróom la yow nangu nga loolu foo ko teg amul fenn fu mu ko teg ci biir alxuraan bu ca delloo ba minal alifi ilal yaa du ca gis julli juróom juróomi julli déedéet juróomi julli boo ko boo ko bëggee xam dangay dem ci yonent bi salaa salaam yàlla moom julli leen rek julli leen rek lay wax waaw julli leen rek lay wax kon juróomi julli yi nga xam ne moom waxu ko te da koo saxal sax loolu amul ci alxuraan na ko weddi kon motax mané bu taxawé ci taxaway bi mu taxaw ni dana weddi lenen manam dana xeyso mu ne l'islam amul wala mu ne yonenté amul wala man na def lu nek ndax su fekkee ne ci alcorane lay wéré ay mbiram ah man na bari lu mu gisul ci alcorane de ci su ko defee naka la koy bu ci amna lu mu weddi lo xamné da fay nek yéfer ci sasi kon yoy yépp ay fen la manam yim njëkk wax rek yépp ay fen la waxuma laag nag mu firee julli yi ñuy maanaam julli rakkaay yi ñu koy def ñaar ñaar mu ne masaani mooy firi julli yi nga xam ne dañ koy julli ñaar ñaar waaye julli yooyu ñaata la waxagu ko moom mais julli yi ñuy def ñaar ñaar nee na loolu mooy masaani loolu lu ko gën a nekk aw fen amul lu ko gën a nekk aw fen amul ndax ci siyaaq bi ba mu jeex baatu julli amu ci maanaam lu ñuy wax ne almasaani mooy firi ay julli amul fenn leneen li mooy wax na ne almasaani mooy lu ñuy def ñaar-ñaar loolu fen la loolu nag am na sax am na sax ñoo ne xëy na xamuñu ko ñu ñu ñu nekk ci kii ñu ñu ko contre sax moom te eh, mën naa am xamuñu ko maanaam almasaani firiwul ñaar-ñaar almasaani firiwul ñaar-ñaar loolu moom laay leeral nii dafa am baat bu ñëw ci alquran dafa am baat bu ñëw ci alquran te arab daana ko mooy baatu masna masna masna Eh, ci wolof wolof amu ko maanaam wolof amul loolu wolof lim am rek mooy maana maanaam mas naa ci boppam moom la lay wax maanaam ñaar ñaar ñaar ñaar firiwul ñaar ñaar maanaam ñaar ñaar égal ñeent déedéet waaye bu ma ko doon wax ci sunu wolof yi pour nit ñi mën koo gën a comprendre su ma ko doon wax ci sunu wolof yi dañuy wax ne Eh, ci sunu wolof yi nga xam dafa jaxasoog français dama naan par ñaar par par ma xam par bi nga xam ne français la par ñaar loolu mooy masna masna mooy par xam nga par ñaar boo ko bëggoon wax dindi par bi ci ci français wax ko ci wolof doo ko xam da nga da nga kon li ngay wax rek mooy maanaa bi ngay wax mooy ñaar ñaar ñaar ñaar waaw mais par ñaar ku dégg ku dégg li may wax nii da nga xam lan mooy par ñaar masalan su ma waa groupe bi yëpp dañoo dajaloo ñoom ñu nekk téeméeri nit téeméeri nit lañ ma ne leen mas masna maanaam dugg leen ci kër gi yéen téeméeri nit ñi dugg leen ci kër gi mas masna du caageen ñaar rek kay dugg de wala ñaaree dugg déedéet dugg leen ñaar ñaar par ñaar ñooy dugg maanaam ñaar ñooy dugg yeneen ñaar dugg yeneen ñaar dugg même buñ nekkoon million ngi nit million yëpp mën nañoo dugg mais par ñaar la ñuy dugg de yàlla nag ne woon ku bëgg a takk sula la nga tak ñaar nga xane man ñaar lay tak, wala ma tak ñett wala ma tak ñent wala ma tak suko defé ñi tak ñaar ay ñaar ay ñaar ñaar lañ manam par ñaar lañ tak ñi ki da am ñaar ke am ñaar ke am ñaar ke am ñaar wala ma jox la mbiskin ne la ko par ñaar ñaar mbiskin mi da ngay jël par ñaar jox diw jël ñaar jox diw jël ñaar jox diw kon dang ko koo lan masna dang ko ñaar jox kee ñaar jox kii ñaar jox kii ñett ñooñ booy takk soxna bi su la neex nga takk benn su la neex nga takk ñaar su la neex nga takk ñett su nga takk ñeent su ko defee dafa mel ne yéen ñi ñëpp groupe bi yëpp ay ay sulaasa lañ ay ñett lañ ndax ku nekk ñett jabar nga am wala ay lañ ndax ku nekk ñeent nga am euh, wala ay euh, masna lañ ndax ku nekk ñaar am loolu mooy baatu masna bi nga xam ne moom la yonent bi waxoon ne salaatu layli masna julli guddi ñaar ñaar la manam julli guddi par ñaar la ñaar bo defé ñaar ngay selmal bo doon def million ngi rakka man na nek mais par ñaar ngay julli bo julle ñaar selmal julli ñaar selmal julli ñaar selmal continue non nga koy def ba ba muy jeex julli guddi gi legi masna bobu est ce que danañ ko def alif ak lam lolou mom daf ci manam man yimay wax yeb bëgguma sax mu jot ci sa parce que du ko comprendre manam al masna est ce que amna الرباع الثلاثة داخ مثنى اي عدد دفع تخوى تخوى اي عدد مثنى وثلاثة ورباع يمال نون ليك لك لولا دفو بوكوت اك مثاني بي ني وخني مثاني بي مثاني بي نخاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني دو اي نيار نيار دي فيه ول نيار تي اللغة العربية أبداً amul benn téere bu wax ne masaani day firi ñaar ñaar maanaam ci aaya ji amul amul benn dictionnaire pour dictionnaire arabe bu ne almasaani mooy firi ñaar ñaar déedéet amul fenn li dictionnaire yépp wax tafaasir yépp wax ko mooy almasaani mooy lu ñuy baamu mën nga ko baamu nag téeméeri yoon mën nga ko nga ko baamu ñiin fukki yoon ah waaye lu ñuy baamu la rek waaw ci lañ tuddee alquran ñu tuddee ko almasaani ñu tuddee ko almasaani moom alquran moo am tur boobu almasaani almasaani ndax moom dañoo baamu ci moom léppam xisas yi est ce que dafa am xissa Moussa benn yoon rek lañ ko def ci alquran dañ koo wax baamuwaat ko waxaat ko waxati ko waxati <laughs> waxuñu ko ñaari yoon. dañ ko wax ay yooni yooni yoon loolu ñu baamu nag mbir mu ñuy baamu lu baree bari loolu la ñuy tuddee almasaani alquran foofu la jëlee tur woowu waaw xista yi même atte yi julli leen julli leen yàlla wax ko benn yoon ci alquran da koo wax waxati ko wax ko waxati ko dinaa mbugal ñi nga xam ne ay yéefar lañ loolu wax ko benn yoon da koo wax waxati ko xista yi muy nett da koo wax waxati ko eh, atte yi muy joxe da ko wax waxati ko digg yi Eh, tëkku yi yëpp da ko wax waxati ko yëpp dañ koo baamu ci la alxuraan tudde tuddee almasaani kon bu ñuy wax almasaani waxuñu ñaar ñaar loolu amul ci arab kenn waxul ne almasaani mooy firi ñaar naa day firi par ñaar teg ko nga ñëw ci almasaani bii ñuy wax ni amul benn téere booy ibbi ñun la eh, sabaan min almasaani masaani mooy firi ñaar ñaar lugatan déet charan eh, déet nga ñëw ci xawaamis yi dictionnaire yi kenn kenn kenn waxu ko kenn amul kenn ko wax loolu boo demee ci mujamul maqayis mujamu maqayisi luga kooku ahmad ibni moom moo ko taalif moom daf lay booleel cosaanal baat la lay jox maanaam daf lay jox baat ne la baat bi nag lépp lii ma lay bëgg a wax yépp ci baat bi lay génnee mu ne la assaa'u wan nuunu wal yaa'u aslun waaxidun maanaam foo gis saa ak nuun ak yaa benn mbir la waaye nag maanaa yu bari ñoo ci génne mu ne la wa huwa takriiru shay'i maanaam baamu dara ci assaa'u wan nuunu wal nga koy génnee jaaluhu shay'ayni mutataaliyayni def ko ñaari benn mbir ñaari mbir yoo xam ne yuy toftaloo la loola itam ci asaa u wan nuunu wal nga koy amee kon maanaam asaa u wan nuunu wal te ci la masnaa di génn ci la isnaani di génn ci la sunaa i di génn ci la masnaa di génn masaani ci lay génn yooyu yëpp ñoom ñoom noonu boo leen dajalee benn cosaan la boo xam ne yii yëpp ci lay génne maanaam maanaa yii yëpp ci lay génnee waaw maanaa ci lay génne léegi nag dafa am lu ñuy tuddee ci luxa assina sina mooy mbir moo xam ne dañ koy baamu dañ koy baamu ñaari yoon def ko ñaari yoon mas naa ci lay jóge mas naa ci lay jóge ah, moo tax ah, yonent bi waxoon ne yaani la sina fi sadaqati xadis mën naa wér mën naa bañ wir wér waaye istishhaad luxawi la maanaam ah, sadaqa maanaam nuñ koy waxee Euh, azaka kenn du ko joxe ñaari yoon ci benn at ci benn at kenn du ko joxe ñaar maanaam kenn du ko baa mu joxe ko joxewaat ko kenn du ko def kon yooyu nga gis ne maanaam baatu mas naa itam ci foofa lay génne am na yeneen baat yoo xam ne mënees na ko fay génne yu baree baree bari mais nag ca cosaan gu njëkk ga rek loola lay loola maanaam cosaan gu njëkk ga boo fa demee loola nga fay fekk am lu ñuy tuddee nag ibnu faris indi na ko almasnaatu almasnaatu almasnaatu boobu nag jam am mooy almasaani almasnaatu mooy lu ñuy baamu lu ñuy baamu at takraar almasnaatu mooy maa quri a wa kurrira lépp luñ jàng baamuwaat njàng ma eh, ci ci moom la ñuy tuddee jam am mooy almasaani mu ne qaala allahu taala wa laqad aataynaaka saban min almasaani araada anna qiraataha tusanna wa tukarrar maanaam mu ne ci loolu la yàlla waxee ne wa laqad aataynaaka saban min almasaani jox nañ la juróom-ñaari laaya yoo xam ne ñi ngi jóge ci lii nga xam ne moom lañu wax wax almasaani mooy alquran alquran njàngam mi dañ koy jàng di ko baamu ñëwaguma ci fatiha damay ñëw rek ci almasaani bi maana alquran maanaam almasaani mooy tekki alxuraan kon aaya yi ma la jox juróom-ñaari aaya yi ma la jox juróom yi ma la jox ci masaani lay jóge te masaani mooy alquran al azim tamit kon juróom-ñaari yi ma la jox juróom-ñaari aaya rek lay doon wala mu nekk juróom-ñaari saar mënul nekk leneen aaya yooyu ma la jox dafa bokk ci almasaani almasaani mooy alquran ndax lan qiraatuha tukarraru dañ koy jàng di ko jàngaat waaye mën naa amit lépp liñ ci wax ci biir moom alxuraan dañ koo baamuwaat xisa yi dañ koo baamu eh, amsaal yi dañ koo baamu eh, waaz yi dañ koo baamu eh, waaraate yi dañ ko baamu lépp lañ baamu ci alquran amul leen lu ci wax wax ko benn yoon waaw aqimu salaata ñaata yoon la ko yàlla wax julli leen ñaata yoon la wax ne joxe leen azaka da koo wax waxati ko da koo baamu baamu gi du baamu ñaari yoon rek lay doon waaye da koo baamu ay yoon yoon loolu lay tudd loolu la loolu la ibnu faris wax ci euh, yaani euh, nuñ koy tuddee euh, mujamu maqaayisu luga kon almasnaatu wala almasaani li muy firi mooy lan mooy alqur'an tahzib tahzibu luga tahzibu luga bi nga xam ne al azhari moo ko taalif maanaam muasiru ibnu faris la dafa wax ca biir ne allahu nazzala ahsana alhadisi kitaaban mutashabihan mathaniya kooku lu ko Cheikh fire di firé kitaaban yàlla wàcce na ci yow yonent bi gën ji wax gën jaa rafeti wax te mooy téere boo xam ne mathaniya léegi mathaniya foofu lu muy lu muy tiri lu muy firi alxuraan moo nekk ñaar-ñaar ñaar-ñaar ci lan alxuraan lu mu nekkee ñaar-ñaar déedéet waaye alxuraan lu ñuy baamu ay mbiram la ay mukarraran kurrira fiihi sawaabu wala iqaabu maanaam jëf yi pay ak mbugal yi yëpp da ko baamu waaw dinaa leen fay nangam wala dinaa leen dóor nangam loolu dañ koo baamu ay yooni yoon ci alquran zajjaaj daat ne wala qad wal quran al azim mooy eh, assab min almasaani assab min almasaani sabu mooy sabu aayaat te fatiha lay junju ci masaani lay jóge waaw ci masaani lay jóge masaani nag du caagee ne sax maanaam ñaar ñaar rek lay lay firi wala lu ñuy baamu waaye mën naa jóge ci cant tamit mina sana maanaam ñetti mbir yoo xam ne wala wala juróom-ñaari mbir yoo xam ne da ay sant la sab'an minal ayat allati fiha sana maanaam juróom-ñaari mbir laa la jox ci ay ayat yoo xam ne cant yàlla ak tagg ko rek moo ci nekk te mooy fatiha kon fatiha dafay firi sabal masaani loolu werante amu ci masaani day firi ñaar ñaar loolu amul ku ko wax may wax sax waxi julli amul ku wax ne day firi ñaar ñaar day lépp lu ñuy baamu baamu ko téeméer yoon nag yaa xam euh, kon mooy lu ñuy baamu masna mooy lu ñuy baamu ci ci maanaa ji nga tax moo tax ñuy wax ne yi du ay ñaar-ñaar ndax alxuraan mënoo wax ne alxuraan ñaar-ñaar te yàlla wax ne kitaaban mutashaabihan masaaniya ab téere la boo xam ne boo xam ne masaaniya la maanaam du téere bi ñaar-ñaar la di téere boo xam ne léppam dañ koo baamu léppam lay baamu jox naa la nag juróom-ñaari laaya yoo xam ne ci alxuraan ji nga xam ne moom léppam dañ koo baamu ca lay jóge juróom-ñaari laay yu yu tedd yu yu yu kawe lool nga xam ne mën naa am sax moo gën a kawe ci aay yi nga xam ne moom lañuy tuddee almasaan yi mooy te mooy alxuraan baatu mas naa ci boppam eh, comme li ma la waxoon dafay firi dafay firi eh, maanaam lu ñu baamu moo di ne mas naa day firi koo xam ne koo xam ne loxoom day joxe di joxe wat manam du joxe ben yon day joxe lu bari koku masnal ayadi lañ ko tuddé masnal ayadi moy loxo bo xamné day joxe di joxe wat day baamu ab joxe du joxe ben yon yutil marrata ba'da al marra naabiga dafa waxon ne anni utammimu aysari wa amnahuhum masnal ayadi wa aksul jafnatal uduma maanaam daf doon tag di wax ne mom dafay joxe joxe boo xam ne du nekk benn yoon dafay baamu ab joxe du caagan ñaari yoon rek lay joxe de day baamu rek day baamu ab joxe ci baatu mas naa sax assa wan noonu wal kii dana ca danañ ca wax ne fulaanun e, siniyatu ahli baytihi yaani arzaluhum mooy sëñ Mbàkke Saaxo rek mën nañu wax ne diw sax siniyatu ahli baytihi mooy ka gën a texee di xeet wi Mbàkke Saaxo bokk nag boo moytul moo fa gën a texee léegi nag maanaam wax nañ ne al almasaani mooy lu ñuy baamu kenn waxul ne almasaani mooy ñaar-ñaar almasaani mooy lu ñuy baamu lan moo tax ñu ne mooy li ñuy baamu alxuraan léppam da ko baamu xissa yi ahkaam yi eh, amsaal yi lépp da ko baamu aaye yi ma lay jox nag te muy juróom-ñaar ci masaani lay jóge ah ci ci almasaani lay jóge loolu mooy suñu waxee ne almasaani mooy al almasaani mooy alquran almasaani mooy julli moom amul ci àdduna ku mos a wax loolu moom loolu amul loolu suñ Mbàkke Saaxo ci Sénégal xale bu amul fanweeri at moom moo ko waxagul te jàngul xamul dara dara dara dara mënul làkk benn baatu arab bu jub moo wax lii kon nag kàcc la loolu jot di wax di bu fekk borom xam-xam la ñuy wax ne xëy na wala nangam nangam comme nag ab kuréer la jaahil la daanaka kooku jërul di kii léegi nag mu des saban min al masaani min googu lu muy lu muy tekk sëñ Mbàkke Cheikh Mbàkke Saaxo moom dafa amoon problème ci lii saban min al min gi min gi li tabiid la ndax alquran mooy almasaani saban juróom-ñaari laaya yoo xam ne dafa soqeekoo lenn la ca almasaani sabaa ayatin min jumlatil masaani maanam ci aaye alquran min ayatil masaani ci lañuy ñuy juróom-ñaar jox la ko jox la ko ah, mën naa nekk tamit min gi nekk min boo xam ne ngir sifa la yàlla dafa wax ne fajitani bu rijsa min al awthaani ni loolu teg tegtalawul ne dangay moytu yenn yenn yenn taq-taq yi wala yenn sobe yi di di di song yeneen sobe yi fajitani bu rijsa maanaam na moytu lépp luy sobe min al yi jóge ci Ki, moy manam lepp luy sobe rek nang ko nang ko kii ndax rëjj sa mooy luy joge ci awsan rek sala ci minal awsan min googu sifala ci ar sa kon man nañu wax ne sab'an sabaan minal masaani min googu sifala ci sabaan te su boba kon lim la bëgg wax rek moy sabaan masaaniya sab'an masaaniya lol motax tax yonent bi ne eh, manam li te moy fatiha mooy assabu almathani assabu almathani foofu nag li tax mu nekk juróom-ñaar yi ñuy baamu mooy dañ koy baamu ci julli dañ koy baamu ci julli loolu beneen maanaa la bu bokkut ak loolu mooy nga wax ne almathani mooy firi mooy firi eh, eh, mooy firi fatiha soo waxee ne mooy firi fatiha mooy dañuy baamu bu caagane ñaari yoon lañ koy baamu dañ koy baamu ay yoon ci julli bi waaw mën nga ko baamu ñeenti yoon mën nga ko baamu ma ngoog da ngay baamu fatiha lu bare bare ci julli boko baamu ci suba dang ko baamu ci takusan baamu ko ci timis baamu ko ci ge baamu ko ci nangam yep dang koy baamu kon lu ñuy baamu la man nga ko baamu million ngi yoon léegi loolu masaani la du agene ñaar ñaar mais lu ñuy baamu la fatiha dañ koy baamu ci julli waaye alquran timit lu ñuy baamu la di jang diko di waye waaye lu baamu ay atem la ak waxam ak leppam kon baatu almasani baamu lay firi baamu def defat mësul firi ñaar ñaar amul boroom xam-xam bu mos a wax lii ci àdduna baat bi ci luxa firiwu ko waa léegi waxi Seex Mbàkke ji fan la tegu kon léegi lii arab du ko wax arab waxul ne almasaani mooy firi lii déedéet almasaani lu ñuy baamu la ko tuddee téere téere yëpp loolu la wax maanaam dictionnaire yi loolu la wax léegi waxi Seex Mbàkke ji fan lay tege Seex Mbàkke jàngoo tub jàngoo arab xamoo dara ci lugal arabiya téere yi ñuy wax ni boo moytuwul tey la ko mos a dégg bu ko déggee am na beneen mujam bu tudd chamsul ulum ximyar yi moom moo ko taalif foofu daf caa wax ne almasnaatu waxidatul masaani maanaam almasnaatu foo ko déggee mooy benn la ci almasaani almasaani nag mooy alquran almasaani mooy alquran almasaani alquranu li anna al anbaa wal qasasa ثنيت فيه يعني كررت شلا يالا وخينا كتابا متشابها مثانية تقشعر منه صفية بنت عبد المطلب دون دون وي انتي صلى الله عليه وسلم فاتو دون كمارسيال دفا وقت بير مارسيال بنا فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يخص بتنزيل المثاني المعظمي maanaam yonent bi nekkoon na fi bi mu fi nekkee di dund moo nekkoon leer gi nga xam ne ci moom la ñuy gindikoo moom lañu jagaloo woon di di wàccee ci moom almasaani almuazzam almasaani almuazzam te mooy alquran waaw léegi man Cheikh Mbacke li mu wax fan la tege kon fan almasaani musul firi ñaar ñaar ci lugal arabiya jëriir sax daf doon wax ne jazallahu alfarasdaqa xiina yumsi mudian lil mufassali wal mathani waaw maanaam dafa dafa dafa muy xas jarir naan ko moom du jàng alquran waaw du jàng du jàng alquran waxuma loolu waaye beneen am na leneen loo xam ne dafay tegtale ne masaani mooy moy mooy masaani mooy mooy alquran yu baree bari la Eh, boo demee ci beneen téere lisaanul arab ibnu manzour wax na ne eh, almasaani min alquran ma sunniya marratan baada marra mooy lu ñuy jàng di ko jàngaat di ko baamu di ko baamat ci alquran am na ñu wax ne fatihatul kitab mooy masaani sabu ayat la ndax yusna biha fi kulli rakaatin min rakaati salaa wa tuaadu fi kulli rakaa raka bu nekk dañ koy baamu moo tax ñu tuddee ko ñu tuddee ko masaani moom fatiha abul haysam wax na ne summiyat ayatul madxi masaaniya waaxidatuha masnaatun masna mooy benn bi masnaatu bu am taabi mooy waaxidatu masaani sab'a ayat la ndax dañ koy baamu ci ci kii bu nekk ci julli gu nekk ci julli nekk e, kon am ñu wax ne tak alquran mooy masaani te loolu moo ëpp sax almasaani baat bi ci boppam alxuraan lay firi as-sab'u almasaani nag fatiha lay almasaani baatu almasaani alxuraan lay firi Xasaan eh, ibni mi nga xam ne waykatu yonent bi la woon daf daan wax ne man lil qawaafi baada xasaana wabnihi wa man lay doon ndax kon way ni mu ko bindee daal man la ci bind waaye wa man mooy tax way wi jub xam naa wa lil qawaafi baada xasaana wabnihi waman man lil mathani baada zayd ibni saabiti way way ci boppam te mooy xawaaf yi kan moo koy taxawee bu fi xasaan jógee ak doomam ji waaye almasaani timit kan moo fi taxawee bu fi zaydi jógee almasaani mooy lan rakkaay rakkaay kay ñi koy julli am na fi <laughs> waaye alquran ak ni ko zayd ibn saabit kii woon bu fi zaydi nekkul woon kan moo koy taxawee kon alquran mom moy almasani fatiha itam danañ ko tuddé almasani té lolu ci làmmiñu yonent bi lañ ko jëlé mo wax né fatiha as-sab'u almasani. jurom té ñom ñun lolu lañu gis ci fatiha fatiha dañ koy baamu ci rakka bu nek waye fatiha mën na tud mën na tud masani sax ci baabu tag manam dañ ci tag yalla rek ay ayat la yo xamné yusna biha ar-rabb subhanahu wa taala wa yuhmad dañ ko ci tag di ko ci bak mom yalla motax ñu tuddé ko masani yi yépp mëna nek nekk al masani day firi ñaar ñaar amul ci arab ci bopam amu ci masani day firi julli yu ñuy def ñaar ñaar lolu amul ci arab ba mu daj amul kenn kenn ku mësa wax lolu kenn mos ko wax masna ba nga gisoon fele nak ci laay jele doon wax masna wa waru ruba masna mom par ñaar lay firi waaye nak al masani day firi ñaar ñaar loolu amul ci àdduna amul dafa amul fenn fenn fenn arab nanguwu ko dictionnaire yi arab yi nanguwuñ ko léegi lan moo koy nangu kon sharia nanguwu ko luxal arab yi nanguwu ko boroom xam-xam yi nanguwuñ ko yonent bi nanguwu ko alxuraan ci boppam nanguwu ko léegi fan la ko Sëñ Mbàkke di jëlee kon loolu leer na ne te loolu ci la tënk ne julli ñe ñaar rakka la kon lii bu daanoo nañ xam ne li mu wax lépp lépp ay kàcc la dara du ci dëgg boo ñëwee ci maanaam dictionnaire yu mujj yi sax maanaam ay mujamul luga al arabia al muasira bu ahmad muxtaar omar dafa lay wax ne masaani mooy ayatun tutla wa tukarrar te mooy ayatul quran nee na moo tax yàlla di wax ne kitaaban mutashabihan masaaniya من المثاني من أسماء القرآن لما فيه من قصص الماضين ولتكرار القصص فيها والمواعظ فيه والمواعظ ما نم المثاني تور لتور القرآن نخ لفنك أي خصة دن كوي بامو ديكو بامو وات واراتي تم دن كوي بامو ديكو بامو وات من نك بني وخي السبع المثاني لول موي فاتحة الكتاب السبع المثاني moom mooy euh, fatihatul kitab am na ñeneen ñu koy firee ne asabol masaani mooy juróom-ñaari saar yi gën a gudd ci alxuraan waaye amul ku wax na julli la de amul ku wax na tamit ñaar ñaar lay firi kon ñaar ñaar gi Seex Mbàkke wax ay kàcc la euh, li mu wax ne julli lay firi ay kàcc la amul dara dara lu ci nekk dëgg dara kon léegi julli nan la nekkee ñaari rakka moom na na wëri beneen aaya kon na wëri beneen aaya wala mu wax leneen lii moom lii moom deena firiwul ñaar ñaar sab'an min al mathani mathani firiwul ñaar ñaar ci lugal arabiya ci boppam boo demee ci beneen téere boo xam ne euh, moom lañ al majmuu al mughis fi garibay al qur'ani wal abu musa al moom moo ko taalif dana ci indi lépp lu ñëw ci sunna ak lu ñëw ci alquran ci ay baat baatu saba ba koy diraasa ba ñëw ci sab'an min al mathani dafa wax ne min ji تبعيد لا مانام سبع آيات من جملة المثاني ولا غير صفة لا موي سبعا من المثاني يعني سبعا مثانية شي لولو من نيو سبعا من المثاني موي السبع المثاني يعني السبع الطوال من البقرة إلى الأعراف ولا من البقرة إلى نانغب لولو ويرم تمنى كي أم كون أه ولا غير فاتحة لا ندخي يونتي مو وخشي حديث بوير تي بخاري نه fatiha moom mooy assabu almathani kon nag leer na ne li Cheikh wax dara du ci dëgg kon amul lenn lu ko nangu moom amul benn base bu mën a teg wax ni léegi kon na waxaat na defaat beneen audio mu waxaat ne julli ñaari rakka lay doon mu tegtaloo ci leneen lii moom mënatu nekk te mu indi lu tax julli nekk juróomi julli ci wàllu secret sax ci wàllu baatin boroom xam-xam yi nit tasawuf yi danañ jàngat lan moo tax mu nekk ñeenti rakka wala lan moo tax mu nekk ñetti rakka ak yu mel noonu yooyu yëpp ci wàllu isra wal mi'raj lañ koy génnee maanaam loolu ci mbiri baatin ñeent yooyu rek lay doon <laughs> ñeent lay doon wala ñett wala wala wala ñaar yooyu yëpp ay ay secret ca nekk boo ko xamul xamoo ko léegi nag loolu mooy ci wàllu baate nag yu mel noonu ci zaahir li ñu sharia jàngal ñeent la amul keneen ku wax loolu amul benn borom xam-xam bu mos a wax julli ñaar raakaat léegi borom xam-xam boobu bu fekkee ci alxuraan la indil ci alxuraan luy tegtale loolu su fekkee ci sunna la indi sunna da ko dàq ba mu maanaam même bu fekkee ne da ngaa bokk ci ñun tudde alquraani yuun mooy ñi nga xam ne alxuraan kese kese lañu la ñuy sukkandiku te ñoo ñoo gën a sànko ci xeet wi alxuraan kese kese la ñuy sukkandiku du sukkandiku ci leneen ñooñu xam ne duñ julli kon ndax julli juróomi juróomi julleeg yooyu amul ci alxuraan eh, ña rakkaay eh, nombre de yi amul ci alxuraan Euh, léegi yu bare bari amul ci alxuraan léegi loolu boo toppul yonent bi doo doo doo ci génn léegi ku bañ a topp yonent bi nag yoo xamal ne sànku nga bu yàgg yow ca sànku yu njëkk ya même bu ñu d'accord ne alxuraan kese lañu ñu war a sukkandiku sax mënoo génnee ci alxuraan loolu loolu mënoo ko génne ci alxuraan kon nag euh, wax ji xam naa mën nañ ko yemale foofu du moom nag jëmmi boppam moo tax ñuy wax